waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa jacal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu noo ngi nuyu tey ziyaara tey ndokkee mbooleem mbokk yi nga xamee ni ñoo ngi siifur te di ñu bàyyi xel ci chaîne youtube bi di yaatal mbindum ñoo leen di ndokkeel bu baax a baax te di leen ziyaara ci weeru tedd yi ñu nekk muy weeru koor di ñaan suñu borom nangul ñu sunuy koor ak suñu jaamu yàlla yépp di am mbégte itam di ñëwaat fii ci chaîne youtube Yaatal Mbindum Alxuraan ak ci studio bu yànj bi nga xamee ni moom la ko chaîne bi waajalal ngir mbooleem euh, li ngeen fi daan jotee ci ay xeeti euh, am njàngale ci lépp aju ci mbindum alxuraan niñ ko war a bindee ak niñ ko war a jàngalee lépp incha allahu taala ci chaîne bi ak ci barab bi incha allahu taala ci ngeen koy amee ñu am mbégte bu baax a baax nag ñëwaat tey teew ci studio bu bees bi nga xamee ni moom lañ ko waajalal ngir di fi jàllale njàngale yu am solo yi nga xamee ni moom la chaîne bi tàmbali woon di ko gungeente ak bokki taalibe yi nga xamee ni ñoo koy bàyyi xel euh, chaîne youtube Yaatal Mbindum Alxuraan nekk mi ngi mastaw bu baax a baax réew mépp ak adduna bépp ci xew-xew bi nga xamee ni moo fi xew muy covid 19 di ñaan yàlla bu baax a baax ci barkeb alxuraan suñ borom euh, saafara balaa bi suñ borom jeexal ko ci àdduna bi waaye jeexal ko itam ci réew mi ba ñëpp itam mën a delluwaat ci seen yëngu-yëngu nañ ko doon defee. di itam taxawaay bu am solo bi nga xamee ni itam njiit réew def na ko ci ak kilifay diine yi mooy gungente xeet wi askan wi ci lépp loo xamee ne dana tax ba euh, tawat ji doo law ci seen biir Alxuraan mi ngi ci jaajëfal. njiitu réew mi di ci jaajëfal itam kilifay diine yépp waaye di fàttali itam nag ne ginnaaw ba mu tàmbalee concours bi ba jotoona binduloo candidat yi ban def euh, selection bi ba def demi finale bi ba def finale bi ci la sunu borom dogale nag tawat ji gane si sunum réew ba tàmbalee yaatu ci la kilifay réew yi euh, jëloon ay matuwaay ci dakkal mbooleem ndaje yi am loolu nag bi mu amee ci la yaatal mbindum mbindum alxuraan yi itam tënku ci ndigal yooyee sàmm wante ak moom di xamle kon ni ni ban waroon a def le 10 mai si ses incha allahu taala ngir sàmmonteeg ndigali kilifa yi kilifa yi nee na koy dakkal du am waaye nag danañ ko wootee ak jotaay boo xamee ni danañ ko defi ci benn ci télévision yi ne ci réew mi jàllale ko ci ba incha allahu taala neexal yi nga xamee ni lañ waroon a jox candidat yi yi ay gañe dara du soppi ko di xam li ne dimanche le 10 mai allah allahu taala à partir de 17h mbooleem candidat yi wala mbooleem ku amoon yéene rek xam li xew ci concours bi ak kan moo ko gagné man ngaa taal sa télévision incha allahu taala di nga am résultat yi ca nam waroon a amee di di fàttali itam ni ki nga xamee ni moo jël première ci góor ñi incha allahu taala am neexalam dara soppiku ci muy juróom benn million yéen waxoon dina ko am ki ci topp itam dina am juróomi million ak genn wàll ki ci topp itam dina am euh, juróomi million léegi nag fukk ak ñaar ñi nga xamee ni ñoo des ci góor ñi kenn ko ni dina am juróom benn fukki junni muy ab neexal boo xamee ni C3S moo ko jox bu dee ci wàllu jigéen ñi itam ki jiitu woon dina am million ak genn wàll ki ci topp dina am un million ki ci topp dina am 500000 kon ñoo ngi nuyu ñëpp te di leen te di leen ziyaara te di leen jox daje ci chaîne YouTube bi incha allahu taala lépp lu ngeen bëgg a xam rek ci doxalinu concours bi ak i yëngutoom ak i xew-xew lépp fi ngeen ko amee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa